token bi daf lay permettre yow mi nga xam ne yaa koy yaa koy yaa koy ak application bi nga xam ne moom la ñuy lancer nga mën see gagner xaalis donc lii lay lii lay permettre nga gagner xaalis mooy que nekkul token boo xam ne tey jii dañ koo dañ koo créer rek pour créer ko doon parce que artiste la da ko créer pour quelque chose caractéristique bi dafa basé wu ci benn application donc application boo xam ne mu ngi tudd Melo Arts d'accord mais également fonctionnement c'est très simple il suffit tout simplement ak mission bi ak vision bi nga xam ne moom la Melo Arts am mooy mu atteindre les cinq cent mille membres donc une fois que mu atteindre les cinq cent mille membres automatiquement rek maanaam token boobu day jël valeur au lieu fi mu toll mu toll fa rek mais day day yéeg mi ngi mel ni or xam nga or tey ba leen ko gisee tey des fois mu yéeg <laughs> des fois mu yàgg pour l' instant le CIO e mi ngi nekk di liggéey ak euh, Youssou Ndour parce que ku xam ñoom bi xame xam également aussi mi ngi liggéey ak Youssou ñëwoon na rencontré yu sundu donc ça veut dire que am na yu bëri bëri yoo xam ne daal ñu ngi koy préparé ci suuf man déjà joxe naa sama proposition pour que ñu mën a collaborer ak Wally Seck donc ça veut dire que li ñuy xaar daal bëri na.